nekkoon naa di sikk sakk ci amuk yàlla sikk sakk bopp nekkoon na di molal lu bare nekkoon naa di njott ni amul doomu aadama bu gëm bu nekk ci kaw suuf aha fii laa tolloon nekkoon naa di njott ni amul kenn ku ma mën a nanguloo ni yàlla moom ko am la melokaan bii nekkoon na lu diir ci man lool nekkoon na mbir mi di ma indil tiis may jéem nag sama kem kàttan li ma ci mën a pare ci bépp yoon nag bu mu mën a jaar moo xam yoon la ci faj sama ay bànneex di wax ni dund bi lu gàtt la wala boog ci beneen yoon mbir mi ci dëgg-dëgg nekkoon na di ma indil tiis bu tar diis ci man lool ci guddi ak bëccëg ba nekkoon naa dama nelaw guddi nekkoon naa di dem marché ci sama magasin waajur waaye duma xam la ma wër lu mu doon ba kenn samay xarit doon na ñëw jàpp sama loxo nuyu ma wax ak man te duma ko tontu duma ko dégg ba mu jàpp sama loxo wax ma diw yow lay waxal ma dool di bàyyi xel xemmetliku ni man lay waxal foofu nag la tàmbalee dogu ni mënta ñàkk ma daldi pare ci mbir mi ma sonnal nii mu jeex benn yoon ci yoon bi walla ci beneen yoon ma tàmbale nag di jàng ay téere lu mu la nëbb nekkoon naa di jàng ay téere yu rëy lool waaye du ma ci jëriñu dul ay baat yu néew doon naa toog diir bu yàgg di jàng téere yooyu la di jàng lépp la nga xamante ne daj na sama loxo ci téere di gëstu ci tegtal bu mu mën a nanguloo amut aji bind ci noonu ma toog diir bu yàgg waaye borom bi subhanahu bi mu gisee ci man dëggub ci jubluwaay ci mbir mi mu dimbali ma dina la tuddal mbir mi nga xamante ne moo ma wommat jële ma ci sikki sàkk yóbbuma ci kóolute ci gëm yàlla ba mu mujj di tuddee bés boobule bésub gëm bépp mbir nag tàmbali di soppaleku ci sama gis-gis ma tàmbali di gis la nekk ci beneen anam bu ma ko doon xoolee démb ma tàmbali di gis garab yi di leen xool ci beneen anam moo leen doon xoolee démb di xool weer bi ci beneen anam bu mu ko doon xoolee démb ma mujj nag di gis mbindub yàlla ci lépp lu ma mënti doon nekkoon naa nekkuma woon di ko gis ci lu ci njëlbeen dinaa la wax nag firnde bu njëkk bu ma wommat yóbbu ci ngëm yàlla ci dëgg-dëgg nekkoon naa di jàng ay téere yi xamle kéemtaan yu nekk ci yenn ci ay mbindaafoonub yàlla ba ma daj ci nettali bi ñu nettali benn façon yoo ba nga xamante ne moom saa yu nammee nen bëre dafay daldi nen ci ay déeg wala palaasub ndox mu bës yaramam yaramam bi daldi toj génnee ab liquide ba nga xamante ne moom day wow liquide boobule mel ni wëñ bi nga xamante ne jargoñ moom may defaree ay néegam mu daldi wow mu daldi ci defar lu mel ni ay ndaal ak i gaal nenam yooyule foofu la koy dugal nenam yooyule foofu la koy dugal ña yooyu des ci kaw gaal yi ci ndox moomu moomule topp seen yaay daldi faatu seen yaay bu faatoo nen yooyu daal di toj daal màgg bëri ñoom waaye tàmbale di def la seen yaay doon def di bës seen yaram yi muy toj di génne liquide boobu muy wow ñu ci tabax ñu ci tabax ay gaal di nen ci gaal yooyu le topp ñu daal dee ñoom laaj bi mooy ana kan moo def boobu le jàppandi ngir defar ci ay gaal ci yaramu yoo bi ba bu génnee mu daldi wow kan moo jàngal yoo boobule defar lu mel ni gaal yooyule kan moo leen jàngal ñuy def la seen yaay yi doon def te ñoom gisuñu seen yaay yi seen yi dee nañ buñ leen gisoon ñu wax ni ñoom ñoo leen ko jàngal kon kan moo leen ko jàngal budul woon yile xeetu jëf kon xeetub yoo dafay daldi jeex ci dëgg-dëgg lii nag am na lu mu yëngal ci man lu rëy lool kan moo leen jàngal ñu def la seen yaay yi doon def te ñoom gisuñu leen beneen nettali mu ngi nii bu niroog ba jiitu nettali ma ko kenn samay xarit ni dafa amoon ab machine buy toj ay nen di leen boof mu dugg ci fanweerub nen ak benn nen ba nga xamante ne moom picc la buy nuuru ci ndox waaye mu ne xam naa nag diir bi nga xamante ne ñoom ñëpp ci li ñuy toj ma ñëw ci diir boobu nga xamante ne ñoom ñëpp nen yëpp toj na mu daldi génnee fanweerub nenub ganaar waaye génnee tamit benn nen ba nga xamante ne picc boobule buy nuuru ci biir ndox la cuucéb daldi génn fanweerub cuucub ganaar daldi dox gaawantu dugg ci biir tool bi benn biñ ci raxoon ba nga xamante ne moom picc la buy nuuru ci ndox toppul yële waaye dafa dem ci déeg ba ci mbal ndox mi tàmbale di feey tàmbale di di sangu ngir moom picc la buy nuuru ci ndox moom moo togle ak i moroomam yi ganaar yi te moom gisul yaayam lan moo tax topput cuucub ganaar yëlale dem ci tool bi kan moo ko xamal ni moom dafay nuuru di fey ci biir ndox topp ma daldi xam tamit nii am na ay xeetub mbindub yàlla lu mel ni yamb buy defar néeg yu nose lool yu jàppandi lool ba nga xamante ne foofu lay dugal seeni lem ma xam tamit ni bu ñu jëloon benn ci nenu yamb yooyu yóbbu ko beneen bërëb saa demee ba toj dana liggéey tamit la moroomam yam bi doon liggéey def ci lem doonte gisul yaayam di liggéey moom li muy liggéey lii nag ab dëkk la ba nga xamante ne moo yee ci man mbir mu màgg ba mu mën xam ni yàlla kat mooy ki